kon ñu jeexale laaj bi rek nee na yan directive irshadaat ñi ngay jox taalibe yi ci kanamu ñi nga xam ne dañuy ŋàññi sëñ bi ngir réer ngir réere ko rek man de sëñ Tuubaa xaw ma ku ko war a ŋàññi daal ndax mu dem loo ko war a ŋàññi man sëñ Tuubaa moom mës la tooñ mbindeef ëmmal ñëpp aw yiw keroog bi ko tuba bi eh, fekk si fele ca darul manan naan di ko jàpp si mooy bi yoonu géej yoonu yoonu ñaareel bi yoonu gànnaaw ba ñuy ñëw ak seen armée ba ak nañ ko waajale Sëñ tuba ci la def xasida ak rahim te biir ci ci biir xasida gi da ci ñaanal yàlla yërëm tuba bi ñu koy waaje sonal si ni rahmanu hëpp لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى سنتو مستري سا املانتا مست سيكل بن دو مارام سنتو دو وخو سفان في ني سوارا صاح بو وخي اجنا لي وخ سفانم اجنا لي وخ موتا ني گنا دنگ نك <laughs> من ما نيغا خامني دانيو وخ يو سنتو يو دا امول سيك جي بام خامغا سنتو مو ني بر ان القدوس من كل تهم yéen a ko setal wëcc man nag eh, sëñ bi danoon naa waaye maa ngi wax yeneen wax kon dal murid dal gis naa li ci ne mooy yow bu lijjanti ñoo ñuy wax xam nga ñoo ñuy wax moom boo kenn digluwut rek mu baax te mu wut te am jotu diglu wax ci sëñ waa ji moom wóor ne fa mu koy waxee moom mooy ci asruqam lay doon te wax turam waaye ñi mu ñëw suñu jotaay bi di wax yu mel xam nga <laughs> moo tax ñooñu jëruñoo faale jëruñoo diglu ëpp nañoo yónnee keneen yu mel noonu bul ko yónnee kenn bul ko diglu yow sa bopp loolu ci liggéey Sëriñ Tuubaa la bopp fexeel ba yu mel noonu bul ko diglu yow sa bopp man de yooyu duma ko diglu fi bul ko digtal keneen itam loolu bu ko benn defee maanaam li di murit ci ci réew mi bu defee loolu yooyu du tasaaroo ñaareel ba ñooñu ñuy wax noonu mënta jeexital ci murit Sëriñ Tuubaa tubaab yi France ci moom moo fi nekkoon sëñ bi di ko xeex te gis nga fii mbiram mujj man yooyu mënta jeexital ci murid mënta yak dara mënta fabbi mu da japp na ne mom bu aduna sip xeyon di wax yeen ñepp ngeen fekk leen mu des feeg sëñ Tuubaa dara yow kay law xeyran seigne Ahmadou sant nañ bu baax baax